sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen baalu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàtt leen teendoo ak yéen ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu toll ak yéen ci téereen bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqul niiraani wa mafatihul jinaani ci fi ñu taxawoon ci suñu bind bi mujj rek ci foofu la ñuy sofe suñu bindu tey suñu bind bi mujj ñu ngi taxawoon fi sëriñ bi doon wax ne wa saxa anna taata al jalili laha salaasatun min al usuli awaluha al xawfu wa thaniha al raja wal xubbu thalisan lizil usuli ja foofu sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi fi doon leeral ci bayit yooyu màndargaay topp suñu boroom subhanahu wa la waaye cëslaay yi nga xam ne ci la topp suñu boroom subhanahu wa taala di wéeru cëslaay yooyu nag sëriñ bi ne nañu mooy ragal suñu boroom subhanahu wa taala waaye mooy yaakaar ko ñetteel ba mooy bëgg ko te sopp ko lool loolu mooy ñetti cëslaay yi euh, muy continuer ba tey di wax ne alaamatul xawfi màndargaam ragal minar rahmaani ci boroom yërmande ja di suñu boroom subhanahu wa taala tarkul maxaarimi mooy bàyyi lépp lu araam bila tawaanin ci lu dul yeexe sëriñ bi radiallahu anhu nee na màndargaam ragal suñu boroom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy boroom yërmande ji mooy lépp loo xam ne moom la suñu boroom bi subhanahu wa taala tere nga moytandiku ko waaye nga bañ caa tàbbi kon moytu lépp lu suñu borom subhanahu wa taala tere te def ko te jëm yàlla rek tax saa bu ko jaam bi dee def na xam ne màndargaam ragal yàlla mi ngi ci moom ndax sëriñ bi nee na màndargaam ragal yàlla mooy jaam bi mooy tandiku lépp loo xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala tere ah, moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala di wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa képp koo xam ne ragal nga suñu borom bi subhanahu wa taala képp koo xam ne ragal nga suñu borom bi subhanahu wa taala waaye ragal gi nga ko ragal danga jël sa bakkan lépp loo xam ne mooy sa bànneexu bakkan nga sànni ko fële ngir sopp sa borom ak ragal sa borom bi subhanahu wa taala nee na kooku day euh, ak fayam du dara lu dul aljanna ëllëg aljana mooy doon ak fayam kon ragal suñu borom subhanahu wa taala lu ama am solo la waaye nag naka lañ koy ragale mooy li nga xam ne eh, tere yi nga xam ne moom la tere eh, nit ki wala jullit bi bañ koo jege bañ koo laal waaye li nga xam ne moom la eh, joxe ci ay ndigal yëpp jullit bi di ko def kem kàttanam ndax bu fekkee ne suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi wasfu maanaam mi ngi melal al ummatu al muhammadiya bil xayriya loolu li nga xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa di ko di leen ko melal euh, ne ñoom ñoo gën ci xeet wi lenn dong moo ko waral mooy dañuy digle lu baax di euh, tereelu lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna munkar loolu dong moo tax xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gën ci euh, xeet yépp euh, so fekkoon ne loolu nga xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax ne ñoo gën ci xeet yépp dañ koo wàcc ba defatuñu ko bu boobaa tamit dootuñu gën kenn kon mandargaam ragal suñu borom bi subhanahu wa taala euh, mooy lépp loo xam ne lu araam la te suñu borom subhanahu wa taala aaye ko tere ko jaam bi mooy tandiku ko alaamatu rajaa'i màndargaam yaakaar suñu borom subhanahu wa taala raxbatuka mooy sa xemmeem fi taati rabbika ci topp sa borom bi nax jël muxtafi ci yoonu kañu xeeñtu aw yoonam te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na màndargaam ragal suñu borom bi subhanahu wala màndargaam yaakaar suñu borom bi subhanahu wa taala day mooy ah, maanaam xemmeem suñu borom bi subhanahu wa taala Ah, te di te topp waaye di ko jaare ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy ni ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kon yaakaar suñu borom mooy lan mooy amu xemmem ci suñu borom bi subhanahu wa taala bëgg ko lool waaye nag di ko jaamu te jaare ko ci ah, yonente bi yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa kon loolu mooy mandargaam Mm, yaakaar suñu borom mooy lan mooy raxbatuka fi taati rabbika mooy xemmem gi ngay xemmem topp sa borom bi subhanahu wa taala waaye di ko jaare ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy màndargaam uh, yaakaar suñu borom bi subhanahu wa taala uh, te suñu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada képp koo xam ne euh, euh, yaakaar ngaa dajeeg suñu borom subhanahu wa la ëllëg nee na na ngay jëf lu baax te bul bokkaale ak suñu borom subhanahu wa la dara kon jëf lu baax mooy ak topp suñu borom subhanahu wa taala loolu képp koo xam ne yaa ngi yaakaar dajeeg suñu borom subhanahu wa taala ëllëg te boo dajeeg moom ay ay am ca yaakaar ca daje ga ngay dajeeg moom ak tuuf waaye ak tanaw kooke Euh, ku yaakaar loolu rek nee na na ngay jëf jëf ju baax te bañ a bokkaale ak suñu borom subhanahu wa taala dara jëf ju baax ji mooy lan mooy nekk ci li nga xam ne moom la diglé digle euh, ci lu baax waaye li nga xam ne moom la yàlla araamal te tere ko nga koy moytandiku euh, sa kem kattan sa kem sa kon loolu itam lu jara bàyyi xel la alaamatul xubbi bu dee màndargaam sopp suñu borom subhanahu wa taala bëgg ko lisil jalaali ñeel borom màgg gi saw ko inaabatin mooy euh, namm ak tuub euh, bëgg ak tuub sopp ak tuub ala tawalin ci ak toftale mooy màndargaam euh, sopp suñu borom subhanahu wa taala mooy lan mooy nit ki fu mu toll di tuubal suñu borom bi subhanahu wa taala fu mu di Euh, baloo ak suñu borom subhanahu wa taala waaye fu mu toll di jégglu ay bàkkaar yi nga xam ne def na ko te mu leer ko ni yi ay euh, bakar la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko aaye woon mu jëf euh, lu koy jox bàkkaar yooyu ki nga xam ne nag mi ngi jëf bakar yooyu waaye fu mu toll mi ngi tuub di delloo boppam ci suñu borom subhanahu wa taala kii def loolu day Euh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na mandargaam sopp suñu borom subhanahu wa taala waaye mandargaam bëgg suñu borom subhanahu wa taala ngi ci moom ndax suñu borom subhanahu wa moo ñu digal ñuy dellu ci moom waaye moo ñu digal itam bu ñu defee ay njuumte ak ay bakkaar ñu dellu ci moom tuub ko mi ngi wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an al azab summa la nee na na ngeen di euh, dellu ci suñu borom subhanahu wa taala di tuub da ngeen di jégglu balaa mbugal mi nga xam ne mbugal mu taratar la bala mu leen a dikkal te bu boobaa du ngeen am lenn lu leen ci dimbali du ngeen am lu leen ci xettali balaa loolaa am nee na ngeen di dellu ci suñu borom subhanahu wa taala euh, waaye na ngeen di tuubal suñu borom bi subhanahu wa kon nit ki war naa bàyyi xel bu baax a baax su fekkee ne itam mi ngi def ay njuumte yoo xam ne Euh, njuumte la yoo xam ne euh, njuumtey euh, fakkastalu moo tax mu koy def mu fexe ba njuumte yooyu bu ko defee mu walbatiku tuub ko waaye mu walbatiku jégglu ko bu baax a baax a baax wëlbatiku jégglu ko bu baax a baax a baax suñu borom bi subhanahu wa taala di wax ba tey ne yaa ayyuha alladina amanu man yartadid minkum an diinihi fa sawfa yati llahu bi xawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kon gis nga na képp yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne murtat nga ba génn ci diine suñu borom dina andiwaat ay ñoo xam ne danañ ko sopp moom suñu borom subhanahu wa taala itam dana leen sopp kon euh, sopp suñu borom sopp gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di sopp doomu aadama euh, gis nga leeral na ko foofu nee na yéen jullit ñi képp koo xam ne day yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla yéen a amu yàlla képp koo xam ne de euh, weddi nga suñu boroom ba génn ci diine na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana andiwaat aw nit ñoo xam ne danañ ko bëgg waaye moom suñu borom subhanahu wa taala itam dana leen bëgg dana leen sopp bu baax a baax a baax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu wax ne almar u maaman ahabba euh, nit ki day cem si day euh, ki nga xam ne moom la sopp rek moom lay àndal kon ki nga xam ne moo sopp suñu borom subhanahu wa suñu borom lay tu di fexey di takkoo ay ndigalam waaye di fexey di moytandiku ay euh, tereem bu baax a baax a baax kon loolu itam ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax mu ne wajjaa dikk na anhum tukkee ci ñoom anna asiyaanal jalil naka mooy aji màgg ji suñu borom subhanahu wa ay dan ba tey loxoo na ko salaasatu ñett minal ci ay cosaan sëriñ bi radiyallahu nee na euh, leer na itam ne dikk na itam ne moy gi nga xam ne moom la jaam bi di mooy suñu borom subhanahu wa taala ci ñetti cëslaay lay bàyyi ko maanaam mooy suñu borom subhanahu wa taala cëslaay yi nga xam ne moom la jaam bi du sukkandiku ba mën a mooy suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu euh, la am donte ne bari na waaye cëslaay yii ci la mooy yooyu yëpp di départ bi ci njëkk mooy lan mooy alkibru mooy rëy wal xirsu ak xir maan ànd ak boole seen wal xasadu euh, ak kañaan fa man képp koo xam ne wéet nga min xaa ci yooyu ataahu dikke na ko ar du njub ga sëriñ bi radiyallahu anhu ñetti cëslaay yi nga xam ne ci la mooy suñu borom subhanahu wa taala di bàyyi ko ba ca jiitu mooy rëy rëy dafa doon loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala suñu borom subhanahu wa taala daf koo jikko jikkooy suñu borom subhanahu wa te bëggut kenn ku ko bokk moom moom inna allaha yaxfiru zunuba jamian waaye suñu borom subhanahu wa taala nee na dana jéggale bàkkaar yépp waaye bàkkaar bi nga xam ne mooy rëy moom wax nañ ne suñu borom subhanahu wa taala du ko jéggal kenn ku ko tuubut kon yeneen bàkkaar yu ndaw ndawaan yi nga xam ne nit ki da koy def mën na koo def suñu borom subhanahu wa taala ci yërmandeem jéggal ko ko te du ko yëg waaye rëy rëy lu moom ak rëy saa bu ko nit ki defee bala ko ko suñu borom subhanahu wa taala jéggal rek daawal bati ku tuub ko kon bàkkaar bu bon la boo xam ne e, nit ku ne war na koo moytandiku wal xir su ñaareel ba mooy e, xir maanaam xir fuqale e, ëppal ci li nga xam ne mooy àdduna ba xeer ci mbirum euh, àdduna lool nga xam ne sa lépp da nga jël sa lépp euh, def ko muy àdduna ba mel ni euh, yow dootoo fi jóge wala da nga jàpp ne da ngay mujj sax ci àdduna di dem xeer mooy tax nit ki di dugg ci lum mu warta dugg waaye xeer mooy tax nit ki di def lu mu war warta def te yooyu itam suñu borom subhanahu wa taala doonte ne wax nañu ne euh, na nga dund ci àdduna euh, ni nga xam ne ni nga ci war a dunde waaye bu na bàyyi xel sa ëllëg muy yawmal xiyaam waaye bul fàtte sa cër ci àdduna euh, kon loolu itam misaal la ci ne waruñoo bàyyi àdduna noonu rek bañ cee liggéey bañ cee jëf waaye bañ cee sàkku ay teraanga ak i tawféex waaye nag loolu warta tax ñu xeer ci ba mu fàbbi ba man ñoo yóbbu ci euh, ak ñàkk ragal yàlla wala ak fàtte suñu borom bi subhanahu wa taala kon yooyu yëpp itam ay jikko la yoo xam ne euh, sëriñ bi radiyallahu anhu na ci la euh, mooy suñu borom subhanahu wa taala di bàyyi ñetteel ba mooy alxasadu mooy soxor maanaam soxor soxor itam bokk na ci cëslaay yi nga xam ne ci la ak mooy suñu borom subhanahu wa di bàyyi ndax ki nga xam ne moom ngay soxore Euh, foo tollu euh, lu mu def ci lu baax sax doo ko gis waaye lu ñaawam rek ngay gis di ko waxtaane te ci soxor gi nga ko soxore moo tax ngay waxtaane lu ñaawam loole su ko defee soxor googu yóbbu na la ci di ko jëw fu mu nekkut soxor googu yóbbu na sax ci dem ba man koo rey te yooyu yëpp euh, cosaan la mooy lan mooy soxor gi nga ko soxore rek ci loolu la bàyyi ko te dañuy wax ne alxasadu alxasudu la yasudul jila maanaam ki nga xam ne ab soxor la ak iñaan day du sang mukk ak maasam maanaam bu jiitu mukk ak maasam moo tax sëriñ bi doon ñu wax ci Munawwir ne wajtanibil xasada war riyaa wal kibra wal xiqda taxul biyaa ne na na ngeen moytandiku soxor na ngeen moytandiku itam gistal na ngeen moytandiku rëy ak keñaan su ngeen ko defee day ne neen di ngeen làq leer gu leer nañ naññ naññ kon su ngeen bëggee làq ak leer gu leer nañ sëriñ bi radi la wax ne na ngeen mooy tandiku jikko yooyu mooy soxor waaye mooy ngistal ak rëy ak li nga xam ne moo aju ci ak kiñaan jikko yooyu yëpp sëriñ bi radi la wax ne na suñu bëggee am ak leer day jikko yooyu yëpp nañu ko moytandiku waaye jikko yooyu yëpp nañu fexe ba ah, bañ cee eh, tàbbi moo tax mu ne fa man xalaa képp koo xam ne wéet nga min haa ci moom ataahu dikkal na ko arrachadu njub ga képp koo xam ne fexe nga ba jikko yooyu nekkul ci moom day sëriñ bira radiyallaahu anhu ne na ak njub dana ko dikkal maanaam dana am ak njub waaye dana am xol bu féex waaye dana dund dund gu euh, tey dund gu mucc boo xam ne du am benn jafe-jafe mu ne fal kibru rëy nag xat ahlaka alagoon na iblis allahin iblis ma nga xam ne mooy aji Euh, moo iblis ma nga xam ne euh, iblis ma nga xam ne yal na ko suñu borom subhanahu wa taala wal xirsu xir xat axraja génne woon na aadama seydna aadama almakin may aji ay maqaama may aji kawe ay euh, daraja de mooy li nga xam ne moo taxoon iblis suñu borom subhanahu wa taala ko moo taxoon suñu borom subhanahu alak iblis ndax bi nga xamee ne suñu borom subhanahu wa la daf koo digaloon mu sujjootal suñu maam aadama rëy moo taxoon mu bañ na du ko sujjootal naa ko xalaqta xalaqtahu min tiinin wa xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin yow ci ak leer nga ma bind maanaam leeruk sawara suñu maam aadama nga bind ko ci ak euh, ban kon duma wëlbatiku di ko sujjootal euh, foofu rëy dugg ko moom iblis ba tax ndigal li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala joxoon muy sujjootal suñu maam Adama mu lànk ne du ko def loolo yóbbe ko euh, alkande waaye loola yóbbu ko toroxtaange loolo yóbbe ko rëbbum suñu borom subhanahu wa taala xër itam mooy li nga xam ne moo taxoon suñu borom subhanahu wa taala génne woon suñu maam Adama ca ajjana euh, waaye wàcce ko ci kaw suuf génne suñu maam Adama ci ajjana wàcce ko ci euh, kaw suuf ndax suñu maam aadama alayhi salaam suñu borom subhanahu wa daf dafa defoon garab goo xam ne ca biir aljana euh, ne ko bul laal garab gi waaye iblis mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko rëbb moom moo ñëw di jax-jaxal ab xolam ba mu mujj xéewlu ca garab googee kon xeer xerteem moo ko yóbbe loolu ba tax suñu borom subhanahu wa taala jëlee ko foofee nga xam ne fa la nekkoon muy daal di koy wàcc ci kaw suuf wa xamala yen woon na alxasadu kañaan ga najlahu doomu aadama ba ala xatli axiihi ci rey mbokkam ma is xawaa ba mu làqee taxabulan am nangu ne na soxoon nag mooy li nga xam ne moo taxoon doomu aadama ci boppam wëlbatiku ray moroomum doomu aadamaam waaye ray mbokkum deretam rey mbokkum deretam mooy euh, mi nga xam ne moo reyoon Euh, nga xam ne la taxoon mu rey ko euh, soxore ko ak ki ko rek moom moo taxoon mu rey ko kon soxor tax na doomu aadama rey moroomum doomu aadamaam waaye tax soxor tax na mbokk rey mbokkam moo xam ne mbokkum deretam la ñoo bokk lépp soxor gu mu ko soxore woon rek loolu moo juróon moom xaabil mu rey haabil euh, kon soxor itam lu bona bon la loo xam ne Euh, mën naa yóbbe nit ki ci alkande waaye mën naa yóbbe nit ki ci ay ñaawteef yu bare bari yoo xam ne euh, ëllëg mën naa jural nit ki euh, mbugalam suñu borom bi subhanahu wa taala ndax soxot googu nga xam ne moom la soxoroon ba def lu mel noonu ba mu paree sax te rey ga nga xam ne moom la rey Haabil ba mu ca jóge moom mi nga xam ne moo ko rey xamutoon nu mu koy def ba suñu borom subhanahu wa moom moo yónnee ay baaxañ ñu ñëw ñaari baaxañ yi benn bi ray moroom mi wàqi ba mu xóot mu suul beneen baaxañ bi ca loola ca la xam ne kon mbokkam mii mu rey daf ko war a euh, gasal bàmmeel daal di koy suul mu daal di def loola te loolu lépp la ko yóbbe soxore ko rek moom moo ko yóbbee kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne mbooleem li nga xam ne mooy ay ñaawteef ak ay bakkaar euh, am na ñetti cëslaay yoo xam ne ci la lépp di bàyyi ko ñetti cëslaay yooyu mooy rëy ak xër waaye ak soxot kon yal nañu yàlla musal ci bàkkaar yooyu euh, musal ci mboolem jullit di wax ne in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma billah wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh